kon mbokk yi ni leen ko waxee woon sànq xasida gi sëriñ bi mi ngi ko tàmbalee ci aoudu billahi min ashaytaani rajim muy xasida gi wakaan xaqan aoudu mooy lan aoudu mooy dinaa muslu billahi ci yàlla min ashaytaani ci shaytaani arrajim yi kat ko ñu dàq ci yërmande yàlla sëñ bi noonu la tàmbalee xasida gi mu ne wa inni auduha bika wa dhurriyataha min ashaytaani rajim wa inni naka man auduha dinaa ko sàkkoo muslu ko bika ci yow yàlla wa zuriyatiha ak ay sëtam mina seytaan ci seytaan arrajim kadiku nu jam kadiku nu dàq yërmaande yàlla sunu borom lii nag euh, soxna su baax nisaroon ne bu amee doom dina ko yóbbu jox ko yàlla sunu boroom jébbal ko euh, muy nekk ci yitte yàlla sunu borom nekk liggéeyal lislaam rek la bëgg ci doomam jooju bi doom ji feeñee jamono nag di doom doom ji jigéen muy ñaan yàlla musal ko ci seytaane ak lépp lu bokk ci moom muy sayyidatuna Maryam kon yaayam moo doon ñaan ñaan googu muy xànnata bintu xaanoot moo doon ñaan ñaan googu euh, léegi nag alxuraan nangul na ko moo tax képp kuy muslu seytaane dangaa war a musloo noonu ci seytaane moo tax sëriñ bi ñaare ci xasidaam saa su waxee a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rek da ciy teg ñaan gii beneen ñaan bi ci toppaat tamit mu ngi musloo seytaane moom it ci suratul muminin la nekk alxuraan la mooy yàlla wax ay jullit ne dañuy ñaan yàlla musal leen ci seytaane ak yàq yàq seytaane ñoom it yàlla nangul leen ñaan googu moo tax sëriñ bi tamit saa su ne da koy da koy toftalee ci ci ci ci ci ci ci seytaane mooy rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi ay yaxduruun rabbi borom bi a'uuzu maa ngi muslu bika ci yow min hamazaati shayaatiin ci jax-jaxi seytaane seetaan day jax-jaxal nit ki fu mu toll di ko jox ay xalaat yu bon ak di ko wax loolu di ko def loolu bëgg a def loolu bon nga xam ne xelam su ko du yar rek wala du ko indiwaat rek seytaane moom da koy fexe yóbbu rek ci safaan ba wa a'uuzu maa ngi muslu bi ka ci yow tamit bi borom bi ay yaxdurun ma bañ maa teewee nit ki bu fi bàyyeekoo war a wuyu ji yàlla borom bi seytaan day dugg ci xelam naan ko weddil dugg ci xalaatam naan ko bul gëm la ilaha illallah ngir mu dee ci kéefër ndax loolu la seytaane bëgg ci kenn ku nekk ci ñun waaye nag booy muslu yàlla musal la ci loolu yàlla bu la ko nangulee euh, su ko defee seytaan du la mënal dara loolu mooy xeet yi nga xam ni moom la sëriñ bi di musloo lu ci baree baree bari ci am mbindam ngir barkeeloo ko ci aaya alxuraan yooyu ngir yàlla musal ñu seytaan ñun ñëpp te noonu nañ ko yàlla defalee incha allah kon noonu la sëriñ bi tàmbalee xasida gi mu ñëwaat nag ne bismillahi rahmaani rahim bismillah tur yàllaay tàmbalee samay wax kon lépp looy def rek boo ne mu ngi tàpp mi ngi tekki yaa ngi tàmbalee tur yàlla ci loolu ngay def arrahman yàlla mi yërëm bépp mi def ci àdduna àddina moom ñépp la yërëm yërëm yërmandeem dafa daj képp fii ci àdduna ki ko weddeek ki ko weddi ki ko gëm ak eh, ki nekkul ci li ko neex ak ki nekk ci li ko neex ki nekk ci ndigalam ki nekkul ci ndigalam ñépp la yërëm ndax yërmandeem fii day yaatu ci àdduna ba mu nit taw ni muy sotteekoo nga xam ne fépp lay daj kon yërmande àdduna noonu la mel arrahim yàlla mi yërëm ëllëg ña nga xam ne toppoon nañ digalam moytandi ko tereem nga xam ne yërmande ëllëg moom day am ñu ko jagoo loolu mooy arrahim yonent bi nag waxoon na sallallahu alayhi wasallam jullit bi lépp lu muy def bu ko tàmbalee ci bismillah rek yàlla barkeel na ko yàlla dina ko def barke kon lépp lu ñuy def ci lu baax rek dañoo war a jiital bismil bismillah nga daal nag Eh, melokaani suñu borom yi mooy yërëm ñëpp ci àdduna boo léegee nag ñu daan góor góorlu ñoo ñoo jago yërmaande ci loolu mooy bismillahi rahmaani rahim mu ne allahumma yow buur bi bi xaq wajhillaahi taala al karim ci àqi sa jëmm ju tedd ji yow yàlla yow borom bi allahumma yow yàlla yow borom bi ci sa àq jëmm ju tedd ji solli yàlla nga doolee wóolu wa sallim te yàlla nga doolee teral wa baarik te yàlla nga doolee barkeel ala seydinaa ci sunu sang muhammadin muhammad wa alihi ak waa këram wa bi ak ay saxaabaam mu ne ko yow yàlla yow ci sa jëmm ju tedd ji ci ci ci àqi sa jëmm ju tedd ji yàlla nga doolee wóolu doolee teral doolee def barke ki nga xam ne mooy sunu sang di muhammad ak waa këram ak ay saxaabaam saxaaba yi mooy ñu àndoon ak moom gëm ko ñooñu mooy saxaaba yi léegi kon loolu ndigalu yàlla la koo xam ne mbooleem lu lu ñu digal moom suñu boroom ndigal loolu la ànd ak ñun mooy julli ci yonante bi te njëkk mu ñu koy digal sax da koo def moom ak ay malaakaam bi mu ko defee moom ak ay malaakaam ba noppi nag daal di sàkku nag ci képp koo xam ne gëm na na na ko defee comme moom ni mu ko defee waaw na ñaanal fu ñu toll rek yonante bi yàlla dolli ko wóolu dolli koo teral loolu mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin wasallim kon ñaanal ko xéewalu yàlla ak jàmme yàlla mu wàcc ci moom yonent bi saa salaam te loolu farata la ci bépp jullit euh, loolu la sëriñ bi def noonu bi mu noppee mu tekki ne yaa man jaala hadihi al xuruuf ridaaka wa ridaa rasulika yaa man yow mii nga xam ne yow yàlla yow mii nga xam ne jaala yaa def hadihi al xuruuf yii la lettre xuruuf mooy lettre moom mooy pluriel lu xarf xarf mooy benn lettre xuruf mooy ay lettre yow mi nga xam ne yaa def lettre yii sëriñ bi nag dina tuddee ak xasida ay lettre dina ko tuddee kitaabatiya yaa ngi dégg wàccaxal kitaabatiya wàccaxal xuruf yi defal sama araf yi kon fii xasida yi xasida gi la ci jublu kon yow mi nga xam ne yaa def xasida gii ridaaka mu doon sa ngërëm kon ku bëgg ngërëmu yàlla day jàng xasida gi ndax yàlla def na ko mu nekk ngërëmam wari daa rasulika mu doon ngërëmu sa yonant kon ku ku bëgg ngërëmu yonant bi day jàng xasida gi kon yàlla def na ko mu doon ngërëmam waaye def na ko tamit mu nekk ngërëmu yonant bi sallallahu alayhi wasallam loolu la sëriñ wax foofu fu mu tuddee yonant bi nag faaw mu ñaanal ko moo tax mu ne alayhi salaatu wasalaamu yàlla na xéewalu yàlla ak dolli wóolu yàlla na nekk ci moom wa forxata jamial muminin wal muminaat yàlla tamit moo def xasida gi mu nekk mbégum jamii al muuminiin mbooleem way gëm ñu góor ñi wal muuminaat ak mbooleem way gëm ñu jigéen ñi kon yàlla def na xasida gi ne euh, xaraf yi di xasida gi def na ko mu nekk ngërëmam def na ko mu nekk ngërëmu yonante bi sallallahu alayhi wasallam def na ko mu nekk euh, mbégum mbooleem way gëm ñi ñu góor ñi ak mbooleem way gëm ñu ñu jigéen ñi kon képp koo xam ne am na mbég faaw dana bëgg xasida gi képp ku am mbég mbégum ngëm moo xam nguy góor wala mbégum euh, ngay ngay jigéen danga bëgg xasida gi boo bëggee ngërëmu yàlla faaw kon da bëgg xasida gi boo bëggee ngërëmu yonante bi saa salaam bëgg xasida gi amin yàlla nga nangu samay ñaan yow yàlla sunu borom yaa rabbal alamin yow mi borom mi def yi yaa man qaala yow mi nga xam ne yaa waxoon ci biir alquran ne wa kaana xaqan alayna nasrul muminin wa kaana nekk na xaqan di yàlla alayna ci ñun nasrul muminin dimbali way gëm ñi daal war loolu nañ ci sunu bopp dimbali way gëm araf yooyu nag lay jël taalifee ko xasida gi mot mel ni luy tàmbaliwaat xasida gi ne bismillahi rahmaani rahim loolu firi woon nañ ko sànq kon ci turu yàlla la ñuy tàmbale yàlla mi yërëm bépp mi def ci àddina yàlla mi yërëm ëllëg ñu ko soob ci àllaaxira wasalla yàlla na dooli xéewal allaahu yàlla ala sayidna ci sunu sang muhammadin muhammad wa alihi ak waa këram wa sahbi ak sahaaba wa sallama tamu doollee ko wóolu tasliman ak wóolu léegi nag mu tàmbali ci waaw gi tàmbale wa kaana xaqan waaw mu ne wajjahtu kulliya bi xam wa shukur ila waliyil muminina wa shakur wajjahtu jublu naa jëmale naa wajjahtu juble jëmale naa kulliya sama lépp bi hamdin ci cantu xol jëmale naa sama lépp ci cantu xol wa ak cantu jëf cant koo xam dama koy jëfe ci samay cër man xam ne sant naa kon nee na wajjahtu jëmale na kulliya léppam bi xam ni ci cantu xol wa ak cant boo xam ne cër yee koy wane ilaa waliyil muuminiin ci ki nga xam ne moo méngoo mbiru jullit yi moo méngoo way gëm ñi moo al nekk seen allié wa shakur di santaakoon nga xam ne daa sant jëmmam daa sant léppam amul dara lu muy soxla nee na sëriñ bi nee na kon jëmale na léppam ci sant yàlla ci la ci xolam ak ci ay cëram ki nga xam ne moo méngoo way gëm yi seeni mbir ba noppi di santaakoon moom suñu borom tabaaraka wa taala kon waaw gaa ngi noonu waaw gaa ngi ñu ñëw ci kaaf gi nekk ci kaana mu ne kun yaa waliyu yaa qadiru yaa nasir lil muminina innaka alhaadi albasir kun yàlla nga nekk nga ñëw ci ñaareelu xàbb bi lil muminina ñeel wayu gëm ñi yàlla nga nekk ci ñeel wayu gëm ñi yaa waliyu yow aji méngoo ji yaa qadiru yow aji kàttan gi yow borom kàttan gi yaa nasiru yow aji ndimbal gi yow aji dimbalee mi nga xam ne yaay dimbalee innaka yow sunu borom yow mi nga xam ne yaa nekk alhaadi di aji ginde albasir di aji gis kon di turi sunu borom la sëriñ bi di ko ci woowee di ci dagaan di ko woo di ko ci ñaan ne ko yàlla nga nekk ñeel woy gëm ñi te loolu nekk na ko ba noppi ndax wax na ko ci alxuraan yàlla waxoon na ne allahu waliyu lazina amanu yuxrijuhum mina zulumaat ila nuur yàlla moo méngoo ñi nga xam ne gëm nañ mu génn leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer loolu wax na ko léegi sëriñ bi jaar ci noonu sunu borom waxee ci alxuraan di ko woo ci turam yu tedd yu màgg yooyu ngir di ko dagaan di ko ñaan ñaan yoo xam ne faw bu ko woowee ci turam yooyu ñaan ko rek ñaan gi da koy daal di nangu léegi bu nu seetloo ci wàllu lasraar nag ci loo xam ne mën nañ koo yokkante dollante ñun mbokk taalibe yi tur yi sëriñ bu woowee sunu borom tabaaraka wa taala muy waliyu ak xadiir ak nasir ak haadi ak basir suñu leen boolee fi ñu toll nii dañuy jox siratu suur euh, euh, secret lixlaas maanaam sirru sirru lixlaas suuratul lixlaas nga xam day tolloog 972 972 mooy tolloog suratul ixlaas ci ñu jàng wàllu adadu adadul ixlaas bu ñu ko adadee 972 yooyu wala yu mooy 46 la boo ko adadee qadir boo ko adadee 314 la lay jox nasir boo ko adadee 320 la lay jox hadi boo ko adadee mu jox la 20 basir boo ko adadee mu jox la 272 loolu nag boo leen boolee moo lay jox 972 nga xam ne xasida gi dafa denc ay ay secret secret yu yéeme yéeme nga xam ne ku doon liggéey tur yàlla sax mën nga cee liggéey su ko boo doon boo bëgg liggéey surat siratu euh, sirru lixlaas mën nga ko liggéey ci xasida gi ndax 972 yi mooy jàpp tur yàlla yi lay sëriñ bi indil te loolu mooy sirru mooy adadu mooy adadu suratu lixlaas léegi nag bi nga xamante ne euh, euh, sëriñ bi ñaan na lii mu ñaan ni mooy nekkal ñeel woy gëm yi yow mi nga xam ne yaay aji méngoo seeni mbir yaay borom kàttan yaay borom ndimbal te nekk nga di gindee yow sunu borom di nekk aji gis lim koy ñaan nag mooy lan mu ne ko mu ne ko ci ñetteelu bayit bi te ñetteelu bayit boobu moom mooy euh, alifu kaana gi kaana gi ah, kaaf gi alifu ko xëcc da koy war a indi ñetti yoon nag alif googu war a mooy war a ñëw nii incha allah mu ne ko azhabta fawra li siwaana kulla man laysa zaman mu ne azhabta yàlla nga dàq dàq bu gaaw yàlla nga dàq ah yàlla nga dàq mu sori fawran ci lu gaaw li si waanaa walis ci ñun walis mu ñëw ci ñun kulla man képp koo xamante ne ah loolu mooy COD bi lu ñoo loolu suñu borom di dàq ñooñu COD bi moo nekk ni la man képp koo xamante ne lay sa yakunu nekkul muuminan di way gëm yaasa zaman yow mii borom jamono moo tax sëñ Sàmbay di waxtaan ci waxtaanam yi ne jamono doo ko xas ndax suñ borom mooy borom jamono sëriñ bi woo na ko fii yow mii nga xam ne yaay borom yaay borom jamono kon dàqal ñu na nga dàq dàq mu sori ci nu gaaw walis mu jëm ci ñun képp koo xam ne nekkul ku gëm mii borom jamono ndax ñu nekkutoon woy gëm ñi ñi nga xam ne gëm woon ñoo daan tege fitna ñoo daan sonle maanaam tege tege eh, insécurité ci way gëm ñi kon dàq leen ñu sore ñu bañ a ñëw ci ñun kon gis nga kon ndimbal a ngi noonu tawféex a ngi noonu goo xam ne sëriñ bi ñu koy ñaanal kon yàlla su borom dàqal dàq bu gaaw a gaaw a gaaw a a gaaw mu mu sori ñu képp koo xam ne rek gëmut kon imaan mi ngi foofu kon ñi gëm gëm yàlla te sëriñ bi jàngal nañu ko ci tasawudu sixaar nga xam ne ñi gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal gëm euh, yonante yi ñoo ñooñu noonu fi dool gëm gi ñu gëm yooyu moo tax duñ def lu ñaaw dinañ moytandi koo tooñ kenn dinañ moytandi koo teg fitna dinañ moytandi koo jalgati ñooñu noonu nag ñu bokkut ak ñoom nag suñu borom dàq leen ñu sore ñu ndax ñooñu ay yàqkat lañ ñoo ñooñu indi insécurité ñooñu indi yu yu doy waar yi kon imaan lu am solo la ci ci ci nit loo tax sëriñ bi ñaan ne dàqal mu gaaw. mu soriñu nag mu bañ a ñëw suñu wet suñu wet wat wet suñu wàll mu dem geneen wàll dem feneen li si waanaa mooy feneen mu dem feneen koo xam ne nekkul diggam kon imaan feeñ na foofu euh, beneen bi nee naa la alif gi dana koy indi ñetti yoon ñaareelu alif bi mu ne azhabta fawra li si waanaa kulla man laysa yakunu musliman yaaza zaman azhabta na dàqal kon boog dàqal mu sori walis ñun ku la man képp koo xamante ne ku la man mooy COD bi daa kan lay dàq képp koo xamante ne rek lay sa yëkkunu nekkul musliman di way wommatu ci ndigalu borom bi muslim mooy koo xam ne day wommatu ci ndigalu borom wommatu ci ndigalu borom nag kon booy takk soxna soxna yi la yàlla daganal moom ngay takk boo muslim nekkee muslim tamit jébbalu nga jox sa borom euh, bu nee la lii araam na danga koy bàyyi muslim kon mooy ku wommatu ku ku am ku soumettre ci ci ndigalu borom bi nga xam ne bu ko yàlla nee defal lay def bu ko yàlla nee bàyyil day bàyyi kooku mooy muslim muslim loolu lay tekki islaam mooy action bi nga war a def sa diggante ak sa borom mu ne loo tax mu ne sëriñ bi dàqal képp koo xamante ne rek nekkul di wommatu euh, ci ndigalu yàlla yi rek dàq ko mu sori ñu ndax ñooñu ay yàqkat la ñu doon ndax lu yàlla ne bàyyi ko rek boo ko bàyyiwul rek ak yàqati lay doon waaw ndax boo naanee sàngara mën ngaa jalgati mën ngaa def loo xam ne euh, nit ñi mën nañ cee loroo kon euh, ñooñu nag dàq leen kon bu ñu sori ñu ku wëmbatul ci ndigalu yàlla yi rek nañ ñu leen te bu jamono jooju noonu sëñ bi taalif xasida yi ñi ci ndigalu yàlla yi ñoom ñoo nekkoon di yàqate rek kaw suuf lu mboolem la fi doon yàq rek ñoom ñoo ko doon yàq moo tax sëñ bi ne azabte fawran li siwaana kulla man laysa yakun musliman yaasa saman yow mi nga xam ne yaa moom jamono jamono jii lii fi xew dàq leen kon ñooñu ñu sori ñetteelu azhabta bi azhabta fawrali si waanaa kulla man lay si yakunu muhsanan yaasa zaman kon wax na iman wax na islaam ixsaan nag moo ci topp kon dàqal mu sori ñu képp koo xamante nekkul di way rafetal yaasa zaman yow borom jamono yow mi nga xam ne yaay borom jamono képp koo xam ne nekkul di rafetal rafetal nag sëriñ bi waxoon na la tasut si xaar mooy koo xam ne day jaamu yàlla bu mel ni yàlla nga koy gis bu ko gisul tamit. na moom bu gisul yàlla moom na xam ne yàlla nga koy gis kon na ngay jaamu yàlla bu mel ni yaa ngi gis yàlla comme boo nekkoon ci entreprise chef d' entreprise bi bu taxawee ni ngay rafetalee say action yooyu mënee ci biir entreprise bi ngir mu mën laa defal promotion ngir mu mën laa sant ci kanamu employé yi noonu nga war a yégee ne yow yàlla yaa ngi koy gisee noonu soo mënta yégee ci martaba boobu yëgal ne tamit moom mi ngi lay gis loolu la sëriñ bi wax foofu moo tax mu ne euh, loolu mooy ixsaan léegi nag képp koo xamante ne amutug rafetal googu dàq ko mu soriñu euh, yow sunu borom moo tax mu ne azhab da dàqal mu soriñu fawran ci nu gaaw li si waanaa te mu bañ ñëw ci suñu wàll kul la man képp koo xamante ne lay sa yakunu nekkul mox si man mox si nan di aji rafetal yaa sa zaman yow borom jamono kon ñetti azhab yaa ngi noonu di kaa gi alif gi xëcc kaaf gi mu war a ñëw ci nuun gi nag kaa naa mu war a ñëw ci nuun gi mu ne nafaatana bi afdalil imaani faltanfaxil jamia bil amaani léegi euh, bi afdalil imaani am nañu bind bi anfaxil imaani yépp a wér euh, yépp ay wér xasida yooyu yépp a wér ndax sëriñ bi da koo taalifoon gànnaar ginnaaw bi mu ñëwaatee fii taalifaat na ko yeesalaat ko kon yeesal yooyu loo tax dina am bi loo xam ne dina ci am buy am bee am bu am buy waaye yépp ci sëriñ bi la bàyyeeko moo tax mu ne nafaxtanaa Eh, yow jariñ nga ñu bi afdalil imaan ci imaan gi gën ci imaan gi gën kon da koo santee yàlla suñu borom kon mu ngi sant yàlla ci lim ñu defal loolu ngëneel googu mu ñu defal njariñ loolu mu ngi defal anfa mooy njariñ afdal mooy ngëneel nafatanaa jariñ nga ñu bi afdalil imaan yi ci gën gi gën gën gi gëm wala njariñu gëm jariñ nga ñu ci njariñu gëm ba yëg nañ ne gëm am na lu ñu jariñee mooy jariñ nañu ci ñuy góor góorlu di ba fuglante ak sunu borom di bàyyi xel yàlla sunu borom bi ñu sàkk kon fal tanfaa yàlla nga jariñ aljamia mbooleem jullit ñi bil amaan ci sécurité yàlla nga leen jariñ ba yokk seen sécurité ba kenn ku leen yàqal wala dina teg fitna di yegg ci ñoom gis nga kon sëriñ bi tàmbali naa dugg ci xasida gi nag ci lañ doon sàkku ci moom muy insécurité boobu ñoo ñu amoon gàllankoor yooyu ñoo ñu amoon fitne yooyu ñoo ñu amoon sëriñ baa ngi leen ñaanal nag loolu ba ñu darati ci kaw képp ku gëmati nga xam ne yow boo ko dee jàng di ko ñaan suñu borom dana la musul ci mboolem fitna ak mboolem lu lay luy lore kon ñu yema yema déggul foofu tey ba beneen yoon incha allah ñu ñëw ci yeggale bi ngeen ci doon ànd ak seen bokk njaga jum taalibe sëriñ njaga si la imaam lu ci jub ngeen xam ne ci yàlla la bàyyeekoo euh, doon ci góorgóorloo liggéeyal sëriñ bi yàlla nañ ko sëriñ bi nangul waaye luñ ci juum rek ngeen jéggal ñu ko mbokk taalibe bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rahmatullahi wa barakaatu rahmatullahi wa barakaatu